salaamaaleykum euh, man la Fadel Barro di lëkkale yëngu-yëngu yi ci kuréel citoyen bu ñuy wooyee jàmmi gox yi. Fadel euh, tey dañoo ñëwaat euh, seet si la comme ni ñu koy defee chaque année public yi nga xam ne dañuy soxla seen kàddu rawatina si guddi yi nga xam ne fi nga koy defee si Médina Baye. des mhm. euh, familles euh, euh, ah, <clears throat> c'est chez sama kër la sama sama sama sama sama sama sama kër la su may këru sama këru maam la sama këru nijaay la sama këru sëriñ la samay këru jur la. Medina Baye moo ma moo ma moo ma meññ bu ñuy wax ci olof moo ma meññ maanaam moo ma généré tey ji euh, euh, donc Medina Baye it amul xew bi gën a mag judd yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ku sos kër gii ju nekk di yàquta ay dara bokk na ci li taxoon bàyyi fonk ko soxna la woon ci Baye Niass moo jur suma way jur daf Baye Baye dafa doon jaar ci turam Chérifa la ko doon wax ndax fonk gi mu fonk chérif yi ak fonk gi mu fonk yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi sallam Euh, donc bu gàmmu amee lu mu métti métti ak lu mu jafe-jafe ak lu ñu sori sori ak lu àdduna yëngatu yëngatu àlla fokk moom ku ñuy seet boo ñëwee Medina Baye gii di ñu fi fekk ala kulli xaal buñ ko munee danañu ñëw buñ ko mënu danañu jéem euh, yow kenn dama lay wax fekkeel déwén parce que defoon nañ ko daaw ren ñu dajee fi yàlla nañu yàlla may ci gàmm gu nekk rek ñu di fi daje di waxtaanee euh, ci di xew ci réew mi tuuti tuuti nag parce que dama la waxoon dama waxoon naa la ma bàyyi interview politique mais <laughs> yow waaw mooy loolu euh, tey jeune consoeur boo xam ne aussi dañ la war a encourager parce que gis naa ni nga sonnee ci métier bi donc mënuñu refuser aussi say sollicitation jànkee euh, wax daaw euh, ñëwoon nañ fii am ak yow interview boo xam ne les Sénégalais moo tey jii boo doon def nag daaw ak ren par rapport ak nombre d'invités yi nga ne ñoo ñëw Medina euh, euh, waaw euh, loolu loolu moom soxlawut may jug di génn di vérifier ou quoi que ce soit dafay yokk rek ndaxte teen bu dul deey waxambaane bu dul sonn buumu goj bu dul dog ndox mi dafay gën di baawaan rek loolu moom ala kulli xaal. fii moom faydatal tijaaniya bi nga xam ne tàkk na fi dafay law di dem di dem di dem donc nit ñi nag di ko uyoo ci ci Medina bàyyi ci appel boobu bàyyi def na kaay leen ngeen ñu fetele ma euh, bés yonantu juddu yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mënut lu dul yokk parce que euh, li ko tax a jug moo tax dafa telement noble dafa tellement saint li faydu bi di représenté ci jamono ju lëndëm ji ci jamono bu jaxasoo bi ci jamono bi nga xam ne nit ñi dañ toll ci ay crise identité di set seen bopp di wër seen bopp faydu bi indi ci ay éclairage yu yu yu yu simple yu oyof yu neex yu suscité espoir di di di nourrir doomu aadama ci xolam ci dundam ci léppam ci activité ci ci dundam tout court loolu mënul dul yokk ala kulli donc waaw ti moom day gën di yokk rek c'est vrai gis neen euh, weer yu weesu euh, ki nga xam ne moo nekk suñu xaalis bi. am na mhm. réussite diplomatique bu am solo nga xam ne def na mhm. ko foofu les Soudan. Mhm. je me trompe pas. Mhm. Euh, réconcilier euh, deux troupes yoo xam ne delloon guerre euh, def avec ay conflits yu doy waar. et puis on parle de conflit politique langue politique bu ñu kii même sax bu ñu xool la société sénégalaise de manière générale dañuy mel ni comme crise identitaire boobu nga wax ne on est en train de perdre nos valeurs wala sa climat d' apaisement bi nga xam ne. dañoo demoon les Sénégalais tey bu ñu ñu nga euh, euh, xam nga succès bi nga xam ne moom la euh, Cheikh Mahi Al Khalifa def fële ci Soudan ku dëkk na xam Médina du du guleet waxoon naa ci analyser woon naa ko félicité woon nañu ko ci jamonoom waaye boo xamee Cheikh Ibrahim Niass Baye lu mu liggéey ci biir Soudan ak pour Soudane ak ngir Soudane ak rëg jim ci def lii du nekk lu lu lu bees parce que li nit ñi war a question bi ñu war a laaj mooy que ne comment le Papa Mahi Al Khalifa en peu de temps mu mënu ko réussir yan jalon lañ fa samp yan interlocuteur lañ fa am ñaata nit lañ fa forme ñaata nit ñoo ko yaakaar ci ñëwam ba mun ko déglu loolu nag liggéey la boo xam ne Euh, liggéey bu bu bu doy waar la boo xam ne Cheikh Ibrahima Niass defoon na ko boo demee ci zone boobu yëpp ci Soudan gi yëpp ak fépp ci àdduna daf doon dox di indil àdduna bi jàmm apaisement paix sérénité mu la leen doon indil dama wax ne au lieu de nekk ci di ko yéemu di ci yéemu ak di wax naan way ñun ñoo ñesee ni ñoo réussir li ñoo réussir non il faut oui d'accord oui mais aussi et surtout ban exemple lañ ci war a mun a jël en termes de leadership politique naka la ñu mën a inspirer parce que Baye ci boppam bi mu ko defee bi mu doon wër àdduna bi mu ñëwee ba toog xam nga lu mu wax kilomètres yi ma def yëpp ak voyage yi ma def yëpp dafa bëgg mu nekk exemple buy inspirer jeunesse bi dama ko dédié à la jeunesse donc jeunesse Sénégal li ñu war a jàng ci loolu du du ci yéemu non mais c'est de comprendre les mécanisme par lesquels liggéey bi may yàlla ala kulli xaal moo ci jiitu yàlla rek la. waaye nag naka lañ ci mun di rëj-rëjlu di ci góor góorlu ba comme li Baye waxoon ñu aj suñu yitte bañ ku ñu jàppee rek ay gone loolu laa bëggoon nit ñi jàng si les germes sont là Baye sampal nañu ko jiwal nañu ko euh, partout àdduna bi yëpp waxuma la Sénégal kese waxuma la Afrique kese waaye àdduna képp wër këpp samp sampal nañu fa jiwal nañu fa loo xam ne bu ñu góorgóorloo tuuti rek mun na nekk njëriñ lu fort a fort nekk ci Sénégal Sénégal non seulement position géographique am daf ko wane mais un leadership spirituel bi mu porté ba tey jii tey boo ñëwee ci gàmmu Medina bàyyi nit mun a jugee yéen leen ay journalistes ngeen yéen a ngi war di gis da fiy croiser nationalité bu nekk comment loolu la war a nekk njëriñ ñeewal Sénégal comment on peut faire de nos localité suñu territoire yi ay lieux yoo xam ne nu fi nit ñi di dundee ci spiritualité di ko fi wut si

c'est un constat général la vie est devenue compliquée Sénégal euh, boo amoon aussi le dossier aju sa Ousmane Sonko aussi ñu koy jéem a agité l'Assemblée nationale aussi euh, le pouvoir qui se retrouve avec euh, l'opposition que ce cocktail multiplosif <laughs> laaj ma d'abord lu taxoon bëgguma wax ci politique nee nga ma sax lu tax ah, politicien nga mën na la bokk ma ci man maa def choix wu bañ a bokk ci politique boobu njàpp nos pays sont fatigués nit ñi dañu sonn euh, suñu problème mu développement yi suñu problème mu épanouissement yi suñu problème mu santé yi suñu problème mu euh, cadre de vie ah euh, suñu problème mu environnement yi suñu problème lu ñuy lekk lu ñuy naan suñu problème mu sànq maa ngi tooñ suma benn xarit ma ne ko suñu réew yi ba may xool booy xool ci réseau yi di xool offre yi da ngay gis toujours nouveau arrivage nouveau arrivage ça veut dire que on consomme on consomme kañ lañuy am nouveau départ lan la Sénégal produire muy génn ñu di ko jaay à part euh, jël suñu pétrole bi tay la jël gaz bi tay la ko jël suñu gerte gi tay la ko amuñ benn capacité de transformation boo xam ne danañu amal njëriñ dëgg-dëgg kañ la ñuy wax nouveau départ Sénégal créé na lii produire na lii mi ngi koy génnee ci àdduna comme tey jii exemple jouru gàmmu la ñu nekk Medina Baye la ñu nekk li Baye Niass tabax ci diggante tey ba seen Kossy ak Medina Baye gi ba adduna yëpp daw ñëw di ko ñam si kañ la koy Sénégal di réussir sur tous les plans loolu buñ ko buggee ñu yegg si fa pour man dafa am àlla fokk ñu am capacité déconnecter le temps politique ak le temps électoral ce que j'appelle le temps politique dëgg-dëgg c'est le temps de la construction de ses idéaux li nga gëm demal ci terrain bi nga tabax ko nga liggéey ko nekk ak askan bi jëflanteeg ñoom indi leen xalaat yi nga ci am jox leen chemin bi nga ci am vision bi nga ci am ñi ko épouser ngeen jéem a xool nu ngeen organiser woo structuré woo ba pare di ko jéem a faire advenir loolu laay woy temps de la construction temps boobu ñu ko déconnecté wul ak le temps électoral jël temps électoral bi nga xam ne dafa war a nekk juste temps bi nga xam ne jamono jooju ci lañ war a def élection ñu jël temps boobu def ko presque trois cent soixante cinq jours sur trois cent soixante cinq dañ ko jël def ko temps électoral waxu naka la ñuy faloo rek ci la ñuy nekk naka la ñuy waxu naka lay diw di di di di di di jëlee diw naka lay naka laay jëlee place su diw diw naka lay toogee ci biir place bi kii naka lay dem ñu tamante dëmm gi dul jeex temps boobu dafa dafa bouffer suñu temps bi ñu war a consacrer aux vrais enjeux des difficultés de nos populations man Fadel Barro su ma nee ba dugg ci langue politique gi si je dois faire la même chose du ma ko def damay bàyyi dugguma ci politique ndax loolu donc mënuma mënuma ñëwaat nekkaat ci instant bi ak jàmmi gox yi la paix des territoires ñu ngi xool fii ci kawlax ak ci ay bërëb yi fasantikoo naka la ñuy liggéeyee ak ndaw ñi naka la ñuy liggéey ak jigéen ñi naka la ñuy liggéey ak ouvrier yi naka la ñuy liggéey ak étudiant naka la ñuy liggéey ak sénégalais yi ba faire advenir un nouveau récit politique ba faire advenir un nouveau temps politique ba faire advenir laneen li nga xam ne mu ngi ci suñu xol yi ñu jëm ñu bëgg ko mooy réew mi génn si jafe-jafe yi te kenn uti ci pexe ñàkk pexe giñ ci am ñàkk pexe mu indi ñu ci débat boo xam ne violence kese ci lay aboutir mënuma ko te duma ko def loolu moo waral dooma dégg ci coowal politiciens yooyu bu ma ko daan def sax en tant que activiste tey jii posture politique bi ñu jël pour dëgg-dëgg li des ci suñu dund ñu fexe tarbiyu ci góorlu ci ba ce temps la loolu noonu ñu doon ñu bëgg réew mi mel mu mel ko ñu bàyyee ko suñuy doom ci laa koy gën di def pour man nag en politique jorul wax ju bëri jëfee ko jëfee ko donc loolu rek a tax ma bëgg ko jëfe c'est vrai que nit ñi duñ ko comprendre c'est vrai que ñi ci adhéré du bëri c'est vrai que boo waxee nit ñi dañ koy jël teg loo fële de côté parce que nekkoo fi di wax wax yoo xam ne waxu buzz wala waxu lii wala waxu leel waxu lële mais il nous faut prendre ce temps alla fokk ñu jël temps boobu suñu bëggee suñu réew mi génn ci guute gi mu nekk mais nag boo bëggee bokk ci pëccëxoo gi di politique ngir ak pal kese ak pal kese man xëccoowuma ko bés bi ñu nekk nii di bés yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fal nañu ba pare ci suñu deret ci suñu lépp fal nañu ba pare ñàkkuñu ak pal palu àdduna yi buñ ciy góor góorlu pour jot ci minbar yi la mën a góorgóorlu weex ak naka lañ ko gisee ba nit ñi mën a jokkoo ñu dem ci beneen récit politique mais mënuñu dugg ci ci ci ci ci ci loolu noonu yàgg naa ko wax bi may nekkee ci yanamar lu mu métti métti doo ma dégg ci xastante lu mu lu mu lu mu lu mu compliqué compliqué dinaa fexe ba muccal naa sama bopp ci loolu en tout cas maa ngi sàmm sama bopp ba du ma dugg ci loolu donc dag may may tayit ma des ci sama loolu nangu ci weet nag ba keroog yàlla di may sénégalais ñu mun ñu mun a déggante ba génn ci jafe-jafe yi ñu nekk yow ak sa équipe yëpp